salaamaaleykum euh, waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna fépp fu sénégalais nekk ci àddina di ñu seetaan ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ñaanal jàmm ñu ngi lay ñaanal wér ñu ngi lay ñaanal gudd fan di la ñaanal barke ak tawféex ak mucc ak euh, xéewal ah ngeen dellu si ak euh, ñun ci seen émission jéggi dayoo ñu ñëwaat ak sunu invité parce que dama amoon fu ma duggoon foo xam ni buggoon naa mu àggale ko sëñ Abdallah maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maam Cheikhou di leen te di ko sàkku ci yéen bu baax a baax. sëñ Abdallah liggéeyante lorante rayante yàqalante nga jis ku liggéey frère am mu dee wala nga gis ku liggéeyal frère am pour bu mu amati dara nga jis ku liggéey jabaram nga gis jabar ju liggéey jëkkëram ñaari wujju yuy liggéeyante. ñu waxtaan ci loolu tey ci première partie parce que bëgg naa wax ak yow ci ñetti partie Abdallah ma bàyyi la nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp tey baalu àq sama ñi nga xam ne dañ maa yaakaar te mënuñoo jote ci man euh, te liggéey bi xat maa ngi koy maa leen di baalu àq bu baax euh, bisimilah maam si yow. liggéeyante. bi waaw di nga gis sax ñu njëkkee ko ci suñu njiit yi rek am na njiit yoo xam ne dañuy liggéey seen askan ba ñuy xabtalu di naaw di génn dëkk bi di dee ci gaaleeg yëpp loolu am na lan waaw am na ñuy xattal seen ay doomu dëkk hmm. waaw ñiy dugg ci ndox mi di dee comme jën <laughs> waaw Abdallah Abdallah tey fi nga génn kawe na de ay njiitu dëkk yuy liggéey seen askan mais bu ñu leen liggéey nan la fan lañuy jaarale liggéey bi ba mu dal askan wi njabar boo ko xamee dëgg ah. mën nga def dara loo xamante ni. Hmm. koo bëggul mu wax lu wax ak ku mën a doon. nga def ko réewum lëmm. mën nga ko def ñenn ñi. waaw amul kilifa jine di sa kilifa. ku jaamuwul yàlla jaamu seytaane ci ñi jaamu yi nag ku ne mën na cee bokk. ah. waaw danañ xabtal ay ndaw ba ñuy dugg ci géej gi di dee te ñoo xam ne mosu ñoo ñeme géej. nga yaakaar ne yow ba nga da dalay dégg gaal yéeg ci gaal ak nit ñi liñ ciy nettali jinne yi nekk ci biir géej gi ni mu bëree hmm. maam Cheikhou ñun nit yi ñu ngi doll ci neuf milliards wala huit milliards huit milliards hmm. euh, mala yi nekk ci kaw suuf melentaan yeeg si ndax yeeg yooyu ñoom ñoo ëpp nit yi téeméeri yoon waxuma la benn yoon ñaari yoon ñoo ëpp nit yi téeméeri yoon yi nekk ci kaw joor ji waaw yi nekk ci kaw géej gi hmm. ñoo ëpp mala yi nekk ci kaw joor ji junni yoon waaw yi ne ñooñu jinne yi ñoo leen ëpp ñaat téeméeri junni yoon. waaw yooyu malaaka yee leen ëpp ay milliards yoon. waaw kon doomu aadama moo gën a ndaw ci kaw suuf. Mm-hmm. waaw léegi boo santee nag benn jinne boo xam ne moo ëpp doomu aadama yi ci kaw suuf nga sant ko benn réew bu toll ni dakaar rek kooku tey ji yow ñu gaal bu doon tiital tiital na ñu ñu bari nga xam ne man am na suñoo xam ne naan man du ma mës a dugg gaal ndax liñ ciy wax nga jékki-jékki rek sa fit tekkeeku nga ne fu ca dem xam da xam ne da dee. parce que. li ñuy dund moo metti ah. xam nga nit ki am na foo fu sa dund di toll nga gis sa ndey gis sa baay gis say frère nga yeewu doon góor ci kër xam ne sa yaay ndekkiwul xale yi ci kër gi ndekkiwuñu xam ne tey jii ku ndékkiwul doo mënoo yaakaar añ bi fenn fu dul ci xéewal gu jóge lu jóge ci yàlla sunu borom te yàlla yàlla bay sa tool est-ce que du fipp moomu la nit ñi di jaawale ak lu leen xabtal dugal leen ci géej gi àdduna yàggul bu mele nii mhm. bu njëkk la gënoon a metti mhm. dund gi fi am ñi amu fi woon te sunu ma sunu maam yi doyloo gi ñu doloon yàlla mhm. doon nañ lekk doon nañ naan waaw yàlla moo yor biiru doomu aadama bi mhm. li nga war a lekk di nga ko lekk li nga war a naan di nga naan boo nee tey laay tekki tey laay tabax kër te suñu borom nambagu ko ci yow boo moytuwul nga weddi suñu borom te doo ko sax yëkk jixaat la ci ndaw bu bëgg a tekki dem ci jël gaal ba faatu ca jixaat la waaye tamit xaru la ci ndaw boo xam ne ni xam nga ne fii moo fi duggee damay dee hmm. te su ma toogoon fii mën naa am lu tuut tuut lu ma dundalee sama yaay nga bàyyi ko fi dem dugg ci gaal dee sa yaay googu xamoo après lu muy coono bu muy daj pour après dundal boppam hmm. nga yaakaar ne loolu xel la maam Cheikh nga toogoon fii ak nga dem bu bu gën mën ngaa dem ba yegg hmm. daj fa coono yu gën a metti yi nga doon daj fii ku amulul njariñ ci sa réew waaw boo demee réewu jàmbur yi doo fa am njariñ uh-huh. dëkk bi metti na yàlla yàgg na ak jaamam Mhm. waaw nañu bàyyi yenn risques yi ñuy jël ci gaal yi man d'accord ma ci benn yoon. da nga gis ne loolu dafa jéggi dayoo. dafa jéggi dayoo ñi ciy dee dafa bari sunu ndaw ñaa ngi dee ni dëkk bi maam Cheikh boo bëggee dégg dëgg rek kenn desetu fi il faut que loolu ñu arrêté ko man de bu njëkk. Mhm. daan naa yeb gaal di ci def ñaan ba mu àgg. Mhm. te du këpp waaye dama koo bax dañ daan ñëw ci yow fay la man bu njëkk boobu yàgg na. waaye bi ma demee ba sama xel ma yàgg tukki gis bitim réew la fa nekk ci ay métti ak jeunes yi la ñuy daj moodu moodu yi li métti la ñuy daj. man wax dëgg yàlla def na ce que du est-ce que du aussi est-ce que du aussi mag la dal xelam moo koy may yaram est-ce que du dañoo gis métti juy fii ñu yaakaar ko fëlee tax ñuy dem. am na waaye am na yit loo xam ne du sago maam Cheikh. Mhm. billaahi li may wax dëgg la. Mhm. te boroom xam-xam yu bari xam nañ ne am na yenn dee yi nit ndaw yi dee ci géej gi du sago. Mhm. ay xabtal lañ leen def am na ñoo xam ne sax du du njiital leen xabtal waaye am na si ñoo xamante ni seen ay morom ñoo leen di xabtal ba ñu génn dem dugg ci gaal te duñ tey. am na si ñoo xam ne seen place lañ yor di jaay. Mhm. li ñuy xabtalu di génn di dem sax duñ ko tey te bari na ci ñoo xam ne dañ leen a xabtal ba ñu dugg ci gaal yi. mais kan moo seen waa kër yi. njabar yu bari yi ñii seen xarit ñii ñu loon place ñi nang ñi jote boo jotee nit mu tooñ xam nga nit day mer mhm. mën nga mer mën naa mer tey boo wax la loo xam ne ni yow fayu fayu rek mooy moom ngay gis mhm. te boo fayoo mën na ëpp d'accord waaw d'accord léegi euh, jigéen bi nga xam ni dafa gis nit bëgg ko ñu may ko ko mu tem à un moment donné di ko njabar da koy njabar pour lan da koy njabar pour jël alalam da koy njabar pour mu gën ko nopp da koy njabar pour mu génn àddina njabarante gi ci biir sëy tey tas dëkk bi te jéggi dayoo lool lan nga ci mën a wax waaw njabar moom baaxut njabar baaxul te bokkaale yàlla bu gën a mag mooy njabar moo tax eh, ku ci am soxna fexeel nga def yenn ñaan yi nga xamante ni mooy tax njabar du mën a xaj ci seen diggante loolu am na du la mën a njabar doo ko mën a njabar waaye tey gis naa ko njabar jëkkëram ku dugg ci sëy ngir njabar jëkkëram mu faatu ngir mu mën a doon alal jooju te am na ca doom dëgg te loolu gënut moo tax foog ñu foog ñu yaraat suñu ay doom mm-hmm. delloo leen suñu ay valeur mm-hmm. xam ne alal àdduna jarul daw yenn yëpp doomu aadama yi def alal moo tax ñu koy def te loolu baaxul yàlla nañ ci yàlla musal du du dugg ci góor ndax alal te noboo ko te noboo moo fi bari nag waaw man moo tax man jàpp ne man mbëggeel jafe na trop benn par benn nga koy gis léegi ñu bëri intérêt tax ñuy dugg ci dëgg la intérêt sax danañ ci danañ ci dugg ndax yenn yi waaye intérêt bi dugg ci intérêt ngir am lenn pour rey nit loolu d'accord ma ko mhm. ngir am lenn pour njabar nit ba tàqali ko ay mbokkam dootul gis yaayam mhm. dootul gis ay magam dootul gis ay rakkam mhm. nga jabar ko jël alalam mu faatu nga jël alal jooju alal jooju jeex tàkk say doom tamit dem ba soxla seen ay mbokk mu mënuñu leen a gis ndax yaa dëddale woon seen baay ak ak ak ak ak ak mbokkam loolu doy waar a ngi noonu moom Cheikh waaw moo tax njabar jigéen ñi nag liñ koy def nag neexul ba neexul moo ëpp góor ñi liñ koy def góor ñi ñu ci bari ah. seen ay jabar la ñuy téye pour ñu toog mais Abdallah góor ñi léegi bëgg nañu njabar de waaw góor ñi bëgg nañ njabar ñu ñu si bari góor ñi tamit ñu ngi njabar jigéen yi di ci di ci doxaan wala di ci takk de njabar jigéen ba doxaan ko te teyu ko njabar jigéen ba tëdde ko am na fi ah bari na bari na de bari na góor ñi ci bëri léegi dañ koy ndamoo dugg ci àll bii wut ay njabar yoo xam ne boo waxee jigéen ki mu ne la waaw loolu boo ko defee mbaam nga takk takk ko nit boo ko defee hmm. sëy bi ngay sëy moom nit ka nga bëggoon moom ngay sëyal non am nañu ñoo xam ne bëgguñu sax sëy bi na na na na na nañ ak moom rek waaw géejug njaaloo waaw ku ca bañ a sangu hmm. bu ca raxas say tànk loolu yëpp tàmm njaaloo ak tàmm lu bon moo koy dugal ba nit ki hmm. maam Cheikh man bi may gis njëkk gis jigéen mu sol mu sol jiin damaa taf yi bët nii laa def booba foo ne maa ngi jóge daar nii laa def taf yi bët ngir bañ koo xool yar googu noonu te boobu pas d'éléphant rek lañu doon sol mais léegi jigéen ñi hmm. li tax góor ñi di leen ñeme si ñoom la hmm. ñooy sol loo xam te ni ak ñooy wane seen bopp lépp seen lépp la ñuy wane Abdallah fi mu toll nii boo naree taf say bët ci ndakaaru gi dina metti de mën mën a toll euh, yow miy sëriñ sax boo naree yow sa kër ku ne ku ñëw nga ne ko dama wodd ji wala nga sol lu gàtt doo liggéey ah yow mënoo wax ni yow kuy ñëw mu sol tubéy am na si ñoo xam ne xamuñ sax nu ñuy demee ci sëriñ ak ñu dem sëriñ nu leen neex la ñuy demee ci sëriñ boo leen ne génnal nga dem soli rek yaakaar nañ ne yàq nga seen àdduna nga toroxal nga leen te yow mënoo jël ay sër teg foofu loolu laa loolu laa def waaw da ay sër teg leen ku ñëw nga leen leen woddu leen ngeen dugg mhm. mais am na si ñoo xam ne nii seen yar la noonu lañ leen yere ba ñu màgg loolu kenn mënu ko dindi faalawuñ ci président wala sëriñ wala mais nan ngay ànd ak nit bëgg ko di ko liggéey ba mu yàqu bëggoo ko dafa am loolu loo bëgg ci moom ba tax nga koy liggéey boo jotee ci moom ba ko mhm. moo tax njabar lu bona a bon la ci góor ak ci jigéen ci sëy ci wujj yi mhm. jëkkër jabar yi wujj yi ñu ngi liggéeyante waaw waaw wujj yi wujj yi euh, ma dégg ñu ni entre wujj liggéeyante ci amul bàkkaar loolu dëgg la am am na bàkkaar bu rëy rëy na bàkkaar bu rëy rëy rëy mhm. njabar nit mhm. njabar ko ba mu jàpp ko dañ laa war a rey dañ la war a faat waaw mais kan moo xam ne jàpp na ko. waaw yéen bi salaa bi ñu xamee ki ko jabar. Hmm. kooku dañ koo faat. Hmm. su fekkente ne dala woor ne diw mii moo la jabar moo la sànni lii. waaw ci charia bu ñu doon atte charia. waaw diw moom dañ ko war a rey. doon at ah. réew lay lañ nekk. Ah. waaye pour wane la jabar dafa am danger yu ci nekk tey jii mën nga liggéey sa wujj yow. Hmm. pour mu tas sëyam. moom mu toog liggéey boobu mu dal ci ay doomam. doomam yu màgg bëgg a tekki duñ tekki mukk. Ah. ndax liggéey ba nga liggéeyoon seen yaay mu lekk ko. mën nga def ay nar ay njabootam mu këpp say kaw njaboot yow say njaboot màgg di war liggéey mënuñu ko am moo tax njaboot dafa am conséquences yu ci am am na si ñoo xam ne bañuñ ci ba rey seen wujj ndax bëgguñu wujj bëgguñu koo dégg fenn am na wujj yoo xam ne nag ñoo def noonu ñoo liggéey seen jëkkër ba seen aawo fipp wala seen ñaareel fipp am na si ñoo xam ne dañoo fiir rek ñoom fiiru dafa am fiiru xaj am fiiru golo ak fiiru wuyu mës nga moo ko tojal waaw fiiru xaj moo xam ne jigéen boo xam ne moom day wax rek bu meree bu day fiir day day boo defee mu wax boo deful mu wax boo doxaanee mu wax boo doxaanul mu wax da day ngal-ngale sa bopp bi rek mooy fiiru xaj waaw am bëw rek ah day wow rek moom day nekk si kër gi am koo xam ne fiiru dof la moom waaw ah. moom moom bu fiiree day yàq lii wala mu dem sëriñ léegi liggéey la du rendre compte sax ki bëgg lay def lii wala mu yàqati kër gi wala mu yàqati kër gi waaw du rendre compte kii laa bëgg mooy sama jëkkër boobu après mu après mu giif xam ne demoon na ci ba def na ko nangam ak nangam am fiiru golo koo xam ne nii moom fiiru golo la kii moom moom ak fiiram yëpp moom buy xeex ak yow day yàq dalay lay yàqal pour mu am dam day def dara day ñaan yàlla yàlla na yàlla boo am xaalis waaw yàlla nga sadd wujj bi yàlla nga torox bu mu la jik pour ñu xam ne kii jugu la ah, yaa ngi dégg lu bon rek lay def pour que nit ki mën a mën a mën a nga nga takk jabar sa aawoo waaw di di di dem ci sëriñ di ñaan pour yow nga torox waaw pour ñu ni waaw sa ñaareel moo la moo la moo la jigut ah, loolu waaw léegi moom boo amul moom est-ce que dina am waaw waaw waaw ñoom nag duñ ci xalaat loolu waaw moo tax ñoom ñoom dañuy dañuy yàq lu bari loo xam ne nii ñu si bari nag maam Cheikhou hmm. aawo ah, yi dëgg la ay jàmbaar lañ torop hmm. mais parfois ñu tooñ leen tooñ yoo xam ne ni ñoom bu ñuy fépp sax duñ ko tey nan lañ nan la ñuy tooñee ah, aawo yi da ngay fekk koo xam ne ni moo jëkkëram bu dara du woon dara waaw du jàppale jëkkëram ñu nekk si jàmm waaw jëkkëram bett kooku wujj woo xam ne nii maanaam yaakaaru ko sax woon moom nag bu amul ngëm yàlla ci boppam hmm. mais loolu tooñ la déet loolu du tooñ maanaam tooñ gi laay ñëwee bu amul ngëm yàlla si boppam mën hmm. naa def leneen naka sudul noonu bu amee bu amul ñu koy dalal ak ñu koy conseil mën naa topp saytaane d'accord léegi ci tooñ bi nag fi mu nekkee ñaareel ba mën naa dem ñu ne ko sa aawa da mu ngi lay jugal hmm. te sa aawam jugut ñaareel ba commencé jug jëkkër ji daal di bàyyi aawa bi carrément abandonné ko aawa bi na xam ne nag lii du neen mu jug mu commencé nag xeex ba combat bi commencé foofu waaw loolu est-ce que du loraange ku góor ki parce que ku góor ki defe naa ne après moo ciy mujj subir conséquences yi parce que moom la ñuy jàmb di ko jox muy naan ba wërsëgam tëju waaw feebar commencé ñëw mhm. muy feebar di tële mhm. bu demee fii du mën dara bu demee fee mën dara mhm. wërsëgam commencé tëju xolam di naqari muy màgget te heure màggetam du jot muy béjjaaw muy am ay jafe-jafe yoo xam ne nii ni wërsëgam ëppoon na fii parfois nga romb nit xam ne kii wërsëgam waroon na ëpp fii bu yàgg mais ay liggéey yu bon rek ko jàpp liggéey bon rek du du benn du ñaar du ñett yu ma ci yu ma ci gis léegi Abdallah jàpp nga ni Sénégal mooy dëkk bi gën a kawe ci wàllu bëgg sëriñ waaw walla déet waaw am na fi bari na fi waaye gis naa réew yu ko gën a danger hmm. waaw dem nga ci réew yooyu yow yu ko gën a danger Inde gi ma nekkoon waaw loolu ñoo gën a danger Sénégal du benn sax Mali gii rek liggéey façon xam-xam yi fi nekk moo yu def ci lu bon. Mhm. moo gën a danger ñoo doonte ñoo ëpp xam-xam libi gi nga gis ni libi. libi libi. Mhm. bu ñu jëlee sa photo maam Cheikhou mën nañ cee def lu bon loo xam ne fa ngay jaare yàqu. libi libi libi am nañ ay xeetu marabu yu bon yoo xam te nii. Mhm. ay jinne lañ lay sol. ah waaw libi mais ñun dañoo am baatin ñun baatin lañ am Sénégal fii dañoo dañoo bëri baatin waaw. Ah, am na jabar am na fi mais baatin ngi ëpp waaw moo tax fi ne nii dañuy jaawale njabar nag ak baatin ñun dañoo am baatin am na yenn dëkk yu mu mën a cité yu bari yoo xam ne. kon yow kon yow da nga gis ne yàqante gi ci nekk ci biir senegal ci wàllu bëgg sëriñ am na dëkk ñun yu ñu gën a ñu gën a wex ci wàllu. mën naa ci lim Gabon am na dëkk yoo xam ne nii. Hmm. xamuñ sax luy julleeg woor. am na dëkk yoo xam ne xamuñ sax luy luy église. waaw ñoom lu bon rek la xam lu bon rek dem naa ci ay dëkk yoo xam ne nii bëgguma tur bi sax waaye man nit ñëw na ma ne ma man sama doom yi yëpp diw juru leen sama fara ko jur dama bëgg nga defal ma nangam di nangam bi pour sama jëkkër waaw loolu jéggi na dayo te yooyu noonu bëri na fa te senegal xalaat ak guñ foofu sax ak guñ ci am jëkkër dem jural nit doom ba mu fees te xam ne kii moo jur kii jurul ba ñu bëgg a rey seen jëkkër jëkkër ji xam na ni doom yi juru jëkkër ji ko ba nii ne day jàpp ne moo jur doom ji te gis naa ko du benn du ñaar du ñett ci Afrique gii te da bari na maanaam jigéen ñoo xam ne nii foofa am nañ ay doom te seen jëkkër jurul seen i doom hmm? waaw Sénégal sëñ bi Sénégal nag baax nañu am nañu tuuti lu ñuy rus mais gis naa wallahi billahi gis naa mbonte goo xam ne ni ci ay dëkk Afrique yu ñu kii da naan ñii est-ce que ay nit lañu. waaw parce que man toog nañu fii gis fi benn image boo xam ni dangay gis ku jigéen jël jaan bon euh, euh, astafurlah jël mbot dugal ko ci awraam. waaw ak ku jël doomam tey la ko ndax alal. gabon gi lu tax ñu jël mbot yi di ko dugal ci seen biir affaire vodu la vodu. mais loolu du Sénégal déedéet xam mbott tey jii pour pour richesse waaw nga jaar foofu pour richesse am richesse pour sacrifier nit ki ci mbott la gën a gaawee ak bar ak mbëtt waaw mbëtt mbott bar ci nan dafa dañoo am ay sirru yoo xam ne ay tooke yoo xam ne nii waaw jinne da koy soxla waaw lu mel ni mercure tooke bi nekk ci jaan si ndax bar mbott ñoo ëpp doole euh, mbir moomu noonu te yooyu nag boo ko joxee nit koo xam ne ni ay seytaan la yor mën na la ci defal loo xam ne nii nit nit nga koy weccee ko pour am li nga bëgg yëpp paaka bi nag parce que am na keneen koo xam ne paaka la jël dugal ko ci biiram waaw loolu nag moom ah, mbirum paaka nag xaw ma ci dara waaye xam naa daal mbirum mbott moom ci ay sacrifice waaw bari na ci moom waaye mbirum paaka nag moom xaw ma lu baree baree bari bari ci yu mbir doon waaye mbirum mbott yeeg yi moom gis naa ci ñoo xam ne ni moom dañuy sacrifier seen bopp wala sacrifier seen doom jaare ko ci bari mala yi ma la wax nii mm-hmm. Abdallah ñu génn foofu tuuti ñëw ci réew mi réew meek avenir am ak yi xeex amoon na fi xeex bi dal na élection yaa ngi ñëw kenn xamagul fu kenn féete nan nga gisee avenir u réew mi Abdallah am na ay ndaw mm-hmm. te bari leen na ko trop ñu am njariñ am doole mm-hmm. waaye dama seetlu ne métier dafay xaw a manqué Mm-hmm. Mm. ndax léegi dama gis ne bu njëkk xale yi bëggoon nañ métier doot amoon nañ ko trop mm-hmm. te métier boo ko amee mm-hmm. boo ci góorgóorloo suñu borom dana la suturaal chaque jour nga am loo dundee métier waaw waaw waaye léegi dama gis ne booy yëpp moto la ñuy def dañoo nekk ci moto yi ba ñu métier dañoo bëgg gaaw am ci seen seen ndaw jàngatuñu métier jàngatuñu métier métier bareetu fi te dëkk yi ma dem yu bëri seen ndaw ñi dañuy jàng métier Mm-hmm. waaw ñëpp dañoo am métier. d' accord naa. waaw mais ñun léegi métier dafa dem ba ñu France maanaam ñii oto la ñuy bëgg a am pour kalandoo loolu du métier. Mm-hmm. ñii am na ñu mu nekk ci ñoom métier ñi ñi nga xam ne am na am nañu permis bëgg a def transport ñu jaar la ko ci yoon. mais mais bëgg a ñëw rek bëgg a xëy chaque jour am 7000 loolu mënu laa may ay milliards da ngay jàng métier boo xam ne nii da ngay defar photo yi wala da nga soudeur nga wala menuisier nga wala maçon nga métier boo xam ne di nga ci mën a tedd. waaye ay moto ay jakarta yi nii booy ñoom ñëpp jeunes yëpp moom lañu jël léegi te yàkkamti nañ seen wërsëg trop ba moo tax yenn yi duñ bu ñu xiifee rek ñu mën a muñ dañuy ñëw rek yàqati yàqati yàqati yàqati ne dëkk bi neexul te dëkk bi pour mu neex pour mu dox ci yow la ci yow lay doxee dëkk bi ci yow lay doxee yow yaay dem nga jàngi métier boo amee métier bi nga qualifié nga géem a utiliser sa bopp bu dee soudeur nga doone man ay fenêtre rek laay defar damay créer après créer ay mbir yoo xam ne ci soudeur dina nekk pompe yoo xam ne dinaa ko mën a jaayee 3 millions chinois yi noonu la ñuy def pompe forage yi ñuy jëlee bitim réew soudeur yi nekk fii war nañ mën a xalaat ba defar ko mhm. mais ñoom du ñu xalaat dañoo tayal pour xalaat ah. menuisier yi tey lal yi ñu importé menuisier yi war nañ ko mën a defar ñu ngi commencé nag ko def war nañ mën a defar yoo xam ne dootuñ soxla importé ndax bu dee bant mhm. ñoo leen ko ëppale fuuf mhm. bu dee recherche yi ñu defaree lal ñu ñoo leen ko ëppale fuuf bu dee tapissier yi ñuy jëlee yu ñuy jëlee di ko importer fii mooy canapé yooyu hmm. sunu ndaw réew am na ñu fi nekk ñoo xam ne ñu xarañ lañu nañu gën a xalaat di defar lu dëgër hmm. di defar lu baax tamit pour pour que ñun ñu sawar a mën jënd suñu su suñu kii waaye métier daal laa gis ne hmm. maam Cheikh moo fi manqué moo tax lii yëpp waral fi ak yar yar gi mën nga ci wax waaye yar léegi nit yi doom euh, yaratuñu seen ay doom doomu aadama yi dañuy jël seen doom rek bàyyi noonu ak mbedd mi mbedd mi yar leen moo tax ci musiba rek doom na koy yar mhm. sa jëkko yi nga am valeur yi nga am mhm. nga investir ko ci moom def ko ci moom ah valeur boo mën a am rek euh, dafa war a dem sa doom am ñu am na way jur yu yu newul de yoo xam ne amuñu valeur yu concret est-ce loolu lañu yenn way jur yi ñoo jël valeur yooyu pikil ko seen doom moo tax day day xaw a doy waar maam waajur bu bon sax wallaay bëggul doomam mel noonu mhm. waajur bu melee bu sikkee wallaay du bëgg waajur dafa bëgg doom doom dogit la est-ce que est-ce que nit dina sikk ba xam ni dafa sikk. waaw. nit bu sikkee est-ce que du xel mi day lëndëm ak ak bët yàlla dafa defar lu baax. Mhm. defar lu lu tene. Mhm. defar loo xam ne dañ koy roy ngir bañ a bañ a bañ a mel noonu ngir bañ a bon. waaw. léegi nag bu la yàlla dénkoo ngay maanaam nekk jigóor boo xam te ni da ngay wala nit boo xam ne ni da ngay jëfandikoo yenn yi bon. Mhm. yow sa bopp xam nga ne kii ku baax la waaye man mii kat li may def baaxul waaye natt la wala yu mel noonu bëgguma sama doom def ko. Mmh. nit su bonee dina ko xam maam Cheikh. mais euh, ñàkk yar gi ci ban dëgëral nga ko nag ñàkk yar gi léegi nit xale yi xamatuñ sax nu ñuy waxee ak nit ku la mag. xamatuñ nu ñuy joxe teggin ba mën a mën laa aborder yow ba ba nga xam ne kii kat ku yarul la xamatuñ ko. Mmh. par exemple da ngay man benn borom moto woo na ma. Mmh. Euh, livraison jotuma mu woo ne waa yow yow nangam yow man maa ngi lay woo mënoo maa jël yow baay te xamul sax ku muy waxal ku mu doon. d'accord na. man taxi. Hmm. nit romb na ma taxi ni ma ni ma dawalee baaxul mu saaga ma ndey xamul ku muy saaga ndey ku mu doon. Hmm. ak yeneen ak yeneen nit da koy yar ba bu génnee maanaam ñëpp naw ko ci yar boobu noonu. Hmm. buñ ne kaa leen sànni xeer fu mu jógee dafa toog te na xam ne loolu du cëram. waaye tamit nañ dimbale ndaw ñi parce que lii ñuy nekkee nii wallaahi am nañu ci mën lu bari waaye dañ cee dañoo toog ba ndaw ñi dem ba fippu. da ngay gis tey jii ñii yor lii mënuñ koo defal seen askan. Hmm. te mu leer na la lépp am na fii. Hmm. yow Sénégal nga dëkk yow am nga ci wàll man am naa ci wàll ñuy jël alal jooju di ko jox ñeneen. Hmm. da ngay dem da naan ban su ma xeexul te àdduna xeex lañ koy amee da naan su ma xeexul du ma am loolu waaye tamit li may bañ ci xeex mooy yàq. man d'accord ma d'accord ma ci xeex ndax yàq. waaw ah, yow yàq daal nga ci àndul. man man bëgguma yàq. li ngay yàq yàqu moom xoolal tey jii facture courant bi mam Cheikh lu doy waar laa lay wax xoolal cher gi mu cher ku fayee ko cent mille francs bu cent mille francs yi mu jox ci dépasse yaayam quinze mille mu fayee la ko yaayam fu mu nekk yow trente mille ndax mën naa yor kër mënul yor kër ngay ngay daw di am sa yenn business yooyu yooyu mottalee sa kër ñu ñëw yokk facture courant bii nga war a fay lu ëpp la ngay joxe sa kër gi. waaw pour information yi sax ni ñuy jooyee courant bi ñu ngi koy jooye ndox mi parce que ñi ñi nekkoon ci facture mille francs ndox léegi ñu ngi ci. man maa ngi ci 180000 ndox ñu ngi ci 35000. maa ngi ci ndox 180000 billahi wallahi 188800 ci ndox kase ma dem réclamer ko am naa ko mën naa ko fay mais jaaduwut. Mhm. ma réclamer ko ñu jël compteur bi ne ma danañ ko xool après yow war ngaa teew sax fi ñu koy xoolee. woowuñ ma pour ma teew fu ñu koy xoolee benn mhm. ñu ñu ñu ne ma nag compteur ba lam lakk jaadu na te sama kër fukki nit nekkuñu fa kër ga ma bàyyil sama yaay fukki nit nekkuñu fa loolu mu jaaxal ma lool lool lool sax ba nii nii facture bi bi mu bi mu ñëwee mhm. bi bii bi mu ñëwee ba wàññeeku na ba ba ay defe naa quatre-vingt mille la ay quelque mhm. waaw loolu nag dafay dem ba dee metti su sunu xol yi courant bi courant fay euh, soixante mille soixante-dix mille léegi ngay dem ba deux cent mille francs ma koy joxe ci courant Mm-hmm. loolu même boo ko mënee jaaduwul. Mm-hmm. te man boo may yokkal sax bu dee da nga yokkal. da nga may jaay nga ne ma fukki dërëm laa lay jaaye mm-hmm. boo may jaayee fanweer nee ma fanweer laa lay jaayee. su ma d'accord ñu wax su ma d'accordul ñu wax mais munoo maa jaayee fukki dërëm bu subaa nga jaayee ma ñeent fukk te tàggu woo ma. da nga gis ni loolu dafa indi jaxasoo ci réew mi ak dafa indi xol bu tàng ci réew mi. xol bu tàng ñëpp dañ ko méttitlu yow maanaam essence bi ngay jënd di ko dawal sa oto sax yow. liñ la ciy dagg après yokk bi ñu ko yokk mille presque mille francs la nga fa ñu fay loolu TVA 18 pour cent boo jëndee tey jii boo jëndee njëgu njëgu 20000 daanaka njëgu 15000 ngay lakk. Mhm. ñu fay loolu TVA boo xam ne nii yow du tali bu baax lañ la defar pour nga daw ci. Mhm. du lenn loo xam ne lañ la defar pour nga mën a xam ne 18 pour cent yi ngay fay nii ñu ngi koy def fii fii ngay fi fi nga koy dawalee nii. waa alors léegi ah. ci loolu yëpp nga wax ni ndaw ñi dañu manqué formation maanaam métier bi. nanguwuñu jàng ñàkk teggin bi ñàkk yar gi ñàkk xam ni ñuy waxee gi ñi ñu war a gunge gunge wuñu ñu ñi ñu war a toppatoowee toppatoowoo ñu léegi lan nga def ne mooy solution bi balaa ñuy tëj émission bi que ñi ngi may wax ni waxtu def nañ émission mooy ndaw yi ñu ñu dal te wut métier métier lu baax la mhm. te wàññi drogue bàyyi ko drogue baaxul te drogue bi fi bi dafa bëgg bëri ci dëkk bi te léegi da lay tayalloo da lay loo dalay euh, perte sa valeur yow boobu day wàññi sa xel mhm. dalay xiir ci lu bon dalay soriloo yàlla ñu wàññi dorog bi benn ñaareel ba ñuy fexe di sàmm sàmmante ak suñuy jikko xam ne ñun ñii dañoo war a nekk ku baax dañoo war a yor ay milliards ndax doomu aadama du xalaat lu mënta nekk mhm. maam Cheikh est-ce que xam ne doomu aadama du xalaat lu mënul nekk lu mu xalaat rek mën naa nekk hmm. doomu xaar aadama est-ce que dina xalaat dama am bëgg am kër si biir géej gi am na kër yu nekk si biir géej gi ci biir géej gi nga ne dama fa déedéet ci biir géej gi doomu aadama du xalaat ah non ci suufu ndox ah, ci bi ci ci ndox mi ca biir ca biir géej gi ah, doomu am dem ba ci géej ñi am waaw ay ay kii la rek ay um, île yu mel noonu waaw du xalaat ne daa bëgg am kër ci ngelaw li doomu aadama du xalaat ne man kat damaa bëgg sëy ak sama rak wala sama mag ah am nañu koy def de exemple koo bokkal ndey ak baay mënoo sëy ak moom yooyu noonu doomu aadama du xalaat yooyu yëf mala la waaw doomu aadama du xalaat lu mën mënta nekk dama lay jox exemple waaw doomu aadama mën na xalaat ne man tey suba suba damaa bëgg nekk président mën na nekk ci doomu aadama waaw d'accord naa damaa bëgg am milliard mën na nekk si doomu aadama waaw am ay avion mën na nekk ci doomu mais doomu aadama du xalaat loo xam ne lu mënul nekk la doomu aadama lu xalaat rek mën naa nekk ndax avion bi ngay dugg yow mi naaw ci kaw ngeer doomu ku dina am da nga naan di doomu ko xalaat ba defar ko waaw léegi loolu pour mu nekk nan lañ ko war a doxale ñu ñun nañu nañu xalaat nañ utiliser xel yi yàlla jox mm. ndax suñu borom dafa yaawoyu nal baab ñoo ngi waxee boroom xel yi mm. xel yi nag mu ngi ci xol yi nekkul ci bopp bi fii mu ci xol yi ah, xel ci xol la ne waaw man loolu laa jàpp te loolu laa jàng te ci alxuraan yi li ma yàlla tegtalee mm. ci xol ci xol laa jàpp ne fa la xel nekk ndax buñ bu amoon fu muy dëkk ci kaw àdduna ci xol lay nekk doomu aadama boo baaxee xolam baax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñuy ubbi dënnam di génne ci di génne moom lépp loo xam ne kiñaan la ci xol la doomu aadama buy kiñaan ci xol lay kiñaanee buy bëgg ci xol lay bëggee buy bañ ci xol lay bañee lu muy def lu nekk xolam da koy jiital mm-hmm. moo tax man dama jàpp ne xol sirru bi nekk ci xol lumière bi nekk ci xol mm. moom mooy xel te moom la ñu war a laabal te moom la ñu war laabal mm-hmm. bu ko laabalee bu suñu xol baaxee rek mm. tranquillité daal di ñëw asalaamaaleykum mm-hmm. Euh, euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu doon seetaan ñu àndoon ak Serigne Abdallah Diouf waxtaan tey nag waxtaan waxtaanuñu ci mbiru ñaan ak lii laa mën ak lële laa mën ak lii laay def ak lële laay def waaye ñu wax li waxtaan mu doon waxtaan wu am solo ci mbiru actualité addina defe naa ni di ngeen ci tiire ay leçons et puis dina am ñu mu jëriñ ñu ngi leen di dig daje ba beneen yoon incha allah ci seen émission jéggi day